gannaaw Dakar usmaan Sonko ak candidat bile di Bassirou Diomaye Faye mbooloo gu takku moo leen dalal fii si Ziguinchor. yéen waa Ziguinchor dama leen andil sama rak sama xarit di suñu candidat ñun ñëpp muy Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko nag géejoon na fi lool te dara waralu ko woon lu dul kaso ga mu nekkoon. moo tax fii Ziguinchor. de façon symbolique laay lancer un appel ci ñi nga xamante ne ñu ngi ci boor bee te ki leen tànnal doyu leen parce que xam nañ li nekk ci moom ñu xam ne ñu ngi leen di ubbil suñuy bunt di leen tàllal suñu loxo ndax xam nañu ne li ñu leen jox baaxul jagul nañu rejoindre le camp patriotique le projet d'un Sénégal souverain le projet d'un Sénégal de justice le projet d'un Sénégal de prospérité mais aussi le Sénégal le projet d'un Sénégal qui donne l'exemple, qui guide, qui inspire une Afrique en progrès. candidat bu coalition Diomaye président daal na ci profité ngir woo responsable yu APR nga xam ne kontaanuñu dara ci tànn gi ñuy tànn ki di Amadou Ba ngir mu doon candidat coalition Benno Bokk Yaakaar mu fekk si coalition bi mu jiite. moo tax fii Ziguinchor de façon symbolique lay lancé un appel ci ñi nga xamante ñu ngi ci boor te ki leen tànnal doyu leen xam nañ li nekk ci moom. ñu xam ne ñu leen di ubbil suñuy bunt di leen tàllal suñu loxo ndax xam nañu ne li leen jox baaxul jagul te nañu rejoindre le camp patriotique le projet d'un Sénégal souverain le projet d'un Sénégal de justice le projet d'un Sénégal de prospérité mais aussi le projet d'un Sénégal qui donne l'exemple qui guide inspire une Afrique en progrès Ziguinchor bokk na ci ñaari région yu Sénégal yi nga xam ni ñàkkum xëy mi fa la ëppee te itam mu doon juróom benneelu ko région bu gën a ndóolu ci Sénégal bu ñu sukkandiku ci Bassirou Diomaye Faye moo tax fii Ziguinchor de façon symbolique lay lancer un appel ci ñi nga xamante ne ñu ngi ci boor bee te kiñ leen tànnal doyu leen xam nañ li nekk ci moom ñu xam ne ñu leen di ubbil suñuy bunt di leen tàllal suñu loxo ndax xam nañu ne li leen jox baaxul jagul nañu rejoindre le camp patriotique le projet d'un Sénégal souverain le projet d'un Sénégal de justice le projet d'un Sénégal de prospérité mais aussi le le projet d'un Sénégal qui donne l'exemple qui guide qui inspire une Afrique progrès candidat bu leader bu Pastef bile mbooloo gu tàkku moo ko tertu fii ci Ziguinchor te ndaw yi nag yemuñu ca ndax nag nee nañu dégg nañu kàddu ki seen leader di Ousmane Sonko mu di rek jàppale kii di Bassirou Diomaye fay ci joŋante présidentielle ya